Euh, ci bitim réew le sénégalais de la diaspora waaye tamit ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci gox yu fasantikoo ci biir réew mi ak fu waay mën di nekk rek ñu ngi lay dalal fii ci dëkk bu sell bi nga xam ni mooy tuba Mbacké li ko waral na xam ngeen ko ay waxtu yu néew rek ñu daal di fas yéenee dugg ci li nga xam ni mooy bés bu màgg boobu nga xam ni ku tedd ko suñu maam Serigne Touba Xaadimu Rasuul doon na ko sant suñu borom waaye mu dem ba ni lott naa si di sant suma borom ci li nga xam ne defal na ma ko ci 18 safar kon maa ngi ciy woo bépp jaam ak bépp mbindaa foon sax boo xamante ni ji na ñëw santale ma bés boobu ki nga xam ne mooy suñu borom bi subhaanahu wa taala te mu jaarale woon ko ci wasilaam wa di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo waral tey ci dëkk bu sell bi ñu dajal dalal koo xamante ni ji kenn la ci ni nga xam ni rek mooy réew mi waaye tamit kenn la ci li nga xam ni mooy yooni murit muy suñu papa Ablaye mbay peex nga xam ni suñ ko tuddee rek xel yëpp dina dem ci ñi nga xam ni noonu la euh, maanaam euh, lëkkaloo ak ñi nga xam ni ñooy njabootu maam Cheikhul Khadim ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye njabootu euh, famille religieuse yëpp si Sénégal kon papa ñu ngi lay jox kàddu gi nuyoo yow laata ñuy dox ak yow ci li nga xam ni mooy waxtaan bi. waaw maa ngi lay fay bu baax. julit ci Seyduna Muhammad sangub sang yi sant Sëriñ Tuubaa Mbàkke mi tax nu tal ko euh, euh, dafa am ku ñuy wax sëñ bàcc ka dafa ne woon wut boo amee mu doy nee ñi lay bind ak ñi lay gasi reen boo amee mu doy wut boo amee mu doy lii rek la ñu bëggoon màggal gi am na am na maa ngi lay déglu. kon papa ginnaaw bi nga xam ni loolu euh, yaakaar naa ni sa bëgg-bëgg la waaye bëgg-bëgg la. képp koo xam ne njiit der bu ñuul nga rawatina ngay doomu réew mi di sénégalais wala sax nga bokk ci yoonu murit kon ginnaaw loolu bés bi nga xam ne ñu ngi koy waajal jëmee ci ku tedd kii di suñu maam Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye mu àndoon saak jàmbaari fàkk tëdd ja di borom lamp bii nga xam ne mooy leer suñu ginnaaw lamp fa baabul muridiina lan nga mën a indi ci li bés bi nga xam ni mooy 18 safar bi. ñaanal sëñ Muntaxa mooy sëriñ Touba topp baayam yi topp magam yi bay Serigne Touba tey ñëpp topp ko mu indil nu gëm yàlla ak wóolu ko ndax yàlla boo ko gëmee da nga koy wóolu li fi dugg fu mu dugg jàqare am waaye sëñ Muntaxa dafa delloo si xel ni mbas mi jaamu yàlla la yéen nu it jaamu yàlla la na def li ko yàlla sant nu def li nu yàlla sant loolu mooy jàkkaarloo ne nag moom yàlla rek kay aare kon bu ñu demee ba ñëw tey màggalu Touba réew mi toll noonu wax nga ko nu jàkkaarloog sorol bu gudd bii sëriñ fallu def ko 45 la sëñ Fallou toog ci xalifa gi di kuur bëndëg rafle meng jiba muut dasa sas ba ndar juróomi sooroor sang falu wanil wanil caabi doog fay jógee war nañoo delloowaat nag sëriñ Touba njukkal waaye jërëjëf sëriñ Fallou jëf jërëjëf sëñ Fallou moom mi di waral mu waral lii am tey njëmbatal sëñ Fallou jërul def ndox dana jebbi kon màggal gi ngi nii réew maa ngi nii ëllëg ak jàmm bu fajar si xaree jàng alxuraan jaamu yàlla berne waaye nag kuy kuy sant sëñ Bamba yàlla dangay ngay toroxlu suk sëy woom ñaan yàlla waaye sant yàlla jërëjëfe yàlla yow mi dooleel sëriñ Tuubaa mu dem ci géej gi ñibbisi jërëjëf yàlla yow mi kattanal Serigne Touba jërëjëf yàlla yow mi yëkkati Serigne Touba jërëjëf yàlla yow mi melal sëñ Bamba nii ba kenn mënu koo sajj li fi dugg bi mu fi duggee laal l'islam bi jàkka yi tëj na ràpp Makka ajuñu umra wa defuñu ko Touba ngi doon julli ñi ngi woor ñi ngi màggal jàmm rek kon daal li am solo mooy sant leen gërëm leen Euh, temps bi dafa xatte ñuy waa ñuy waajal euh, bis bi waaye yow loo bëgg ci man danaa la ko defal wax la ni daal li ñu bëggoon daal am na sëriñ Touba màggalam gi am na Cheikh Mountakha woote na ko taalibe yi wusi nañu wàcc nañu nañ dénk suñu bopp sëriñ Touba te noppi. ñu jeex la kàddu goo xamante ni ji rek da nga nekk koo xamante ni surtout da ngay insister ci ndaw ñi ndaxte da ngay faral di wax ndaw mooy ëllëgu réew te ndaw ñooñu am na lu ñu war a def si ñoom mu ci wàllu diine. muy ci wàllu yar muy ci wàllu xam-xam ak wàllu jikko tey lan ngay dënk ndaw ñooñu surtout ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan wala ñu teew tey ci dëkk bu sell bi di waa dama damay wax ni gone piccum naawtal la soo koy lebal lebal ko lu baax bu màggee day naaw te kenn xamul garab gu muy dal waaye ndaw ñi daal ak mag ñi ak réew mi sëñ Touba tàggat na leen njàngaleem sëñ Touba daal ndaw lu ci jaar mucc mag mu ci jaar mucc ku bëgg mucc te ëllëg it duggal ci biir njàngum sëñ Touba gëstu ko jàng ko tey jàngal ko tey doom tey jëfe ko lu jóg teggi la. jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm suñu pap Abdoulaye Mbaye Pekh nga xam ni te suur saa ñu daje ak moom dañuy am mbégte euh, contentement boo xam ne ji ci kàddu yi muy rotol nga xam ni nopp da koy mën di dégg xel di ko taataan waaye nag ku am euh, maanaam. Euh, yërmande wala bëgg-bëgg wala jikko ju rafet dinga ko mën a jëfandikoo mu jariñ la ci biir ak ci biti kon ñu koy sant di ko gërëm ci disponibilité bi ndaxte euh, temps dafa seer te may nañu temps boobu donte mu nekk loo xamante ni ji ki tax mu koy def xam na ko muy kan muy jëmm ju tedd jooju suñu maam Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu yàlla ñaale yàlla ñu si barkeem ak suñu maam Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ak njabootu maam Serigne Touba yëpp waaye njabootu kilifa diine Sénégal yëpp ak nit ñu baax ñi ci àdduna bi yëpp kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaanal ñëpp màggalu jàmm ASTV seen télévision askan wi di leen gunge ci lépp loo xam ne ay programme la wala ay xebaar yu wadde ci màggal gi incha allah dinañ leen ko jox ci ni mu gën a ak ni mu gën a selle di leen jox rendez-vous ci beneen plateau incha allah. بالغاد أتيت بي لذات بسكريا يا رب يا الله